bés bi nga xam ne nag moom la waa G20 euh, dippee rek journée morte fa seena cee nag ne du ñu faste xànc ak moromam foofee ca diwaanu Mbàkke nag topp nañu ko bu baax a baax daal nañuy ànd ci grève bi nu mel Mor Khoudia Fall moom moo yor seen kàddu foofee ca diwaanu Mbàkke ñu teewlu ko ci micro Mamadou Matar Sarr euh, ñi ngi arrêté suñuy collègue ay jàngalekat mu bokk si nag koo xam ne xam nañ ko muy dàmboj nekk secrétaire général CUSEMS authentique mais nekkoon aussi par ailleurs euh, coordonnateur du G20 waaw loolu noonu nag moom moo sabab journée bi nga xam ne def nañ ko tey daal di banque loxo yi bañ a fase xànc ak moroomam toog bañ jàngale ji pour wan ni ko ñu ngi ànd ak moom wan ni ko aussi li nga xam ni moom lañ ko arrêté ñun d'accorduñ si pour exiger état bi aussi mu daal di libérer non seulement Dame Mbodj mooy bépp jàngalekat boo xam ni jàpp nañ la si condition yi nga xam ni condition yi ni mel yi ñu jàppee Dame Mbodj nga xam ni dañ doon euh, exprimer seen liberté yi nga xam ni constitution moo leen ko may ñu ñëw jàpp leen toroxal leen ci seen kanamu élève loolu lañ ni na fi dañ tey jàngalekat yépp taxaw nañ fas yéene jàmmaarloo ko ak état bi pour ñu libere suñuy camarades yi nga xam ne ñoom lañ jàpp que sa soit ñu nekk Oussouye wala ñu nekk Dakar ak fu ñu mënti nekk Sénégal nañ leen bàyyi sans condition sans délai. ndax boo xoolee syndicat yëpp daanaka bindoon nañ seen i préavis de grève ba teg day gën a wane ni état bi euh, dayo bi nga xam ni ak gëdd bi nga xam ni war na ko jox jàngalekat yi jox leen ko